waa gis nga de xéwlu suma borom gaa ngi tuur waaw yaa ngi pare duma. waaw waaw waaw pare xam nga ne lii rek firnde la. waaw wàcc xéwlu sunu borom gi du tuur nii xam nga li temps rek la. waaye di pare suba nag. nga xam non xool non ma de lépp surprise la. noo ko xalaatee rek. yow noo ko xalaatee rek ñu ngi koy pare noonu. waaw da ñuy ñëwal benn bu ndaw. aw ma leen benn toq bu ma lay jox suba rek incha allah. jël Habib Faye euh, da